waaw gars yi gis ngeen ni yëpp ay daal yu réer la mais lii yéeme na de lii yëpp ay daal yu réer la man lii yëpp ay daal ay daal yu réer la daal yu réer non ah, enseigne bi lii yëpp ay daal yu réer la. mais ay pat pat la quoi loolu ay affaire la. ah waaw man xam nga waroon loolu xam naa Abdoulaye Diouf Diallo ak Macky Sall xale bu gars yi doon xale noonu. waaw xale ba mu leer yenn gars yi dañuy dem bàyyi seen daal. non ay moko see pat. tës la yëpp ay daal yu réer la daal yu réer non. daa feesoon del del del del del daal yu réer ay daal yu réer la si tey fii xoolal àdduna fa daje woon àdduna monde bi boo ma la àdduna monde bi monde planète fii lépp ay daal yu réer la waa gars yéen a gisandoo yëpp ay daal yu réer xam ne tey fii waxuma la dara mais bi monde bi ñëpp ñëpp ñoo ñëpp dajoon fii gis ngeen li ngeen gis ñëpp ay daal ay daal yu réew fii ci Colobane bi ma gars yi na xoolal sa daal nga gis ñëpp ay fii macha allah masaale ko moom immigration moom macha allah tey waxuma la dara mais àdduna waaw Amérique àdduna dajewoon fii li ngeen gis yëpp ay daal yu réew sa daal réer ñëwal fi nga ay daal la faa sama daal dafa réer. sama daal la sama daal ana morom bi. ana morom bi. Baye Fall gars yi da ngeen ànd de yóbbal di ko rek samay damay dara ah boo ko jël da ngay déedéet ay daal yu réer la. kii oh, la oh. eh sëñ bi kii ay daal lay seet kii ay daal lay seet xoolal nga ko baax xoolal nga ko baax